asalaamaaleykum mbokki Goudomp ñu ngi leen di nuyu ku ne ci turam ak santam di leen jaajëfal bu baax a baax a baax ci mobilisation exceptionnelle bi ngeen def pour xaar caravane coalition Diomaye Président ay jafe-jafe tey lool pour continuer suñu caravane waaye dañu waxoon ne mënuñoo bañ a ñëw fii ci Goudomp parce que élection législative yi dañoo waay bu baax a baax yéen waa Goudomp ngeen jox coalition Yewwi Askan Wi président Ousmane Sonko jiite woon ndam lu rëy rëy rëy rëy donc ne serait-ce pour ça mënuñu fi woon bañ a jaar pour ndokkeel leen ndokkeel seen responsable yi nga xamante ne ñu fiy def un travail exceptionnel malgré les moyens qui étaient très limités depuis bu Pastef jugee biir Goudomp ba tey ma bëggoon nag rendre un vibrant hommage d'abord à nos défunts parmi lesquels ma bëgg ci citer Pape Mamadou Diémé mooy sama xarit sama proche collaborateur dans le parti une valeur de Goudomp et une grosse pour le Sénégal kon ñuy am ci moom une pensée pieuse di ko masawaat waa Goudomp di ko masawaat ay njabootam di ndokkeel aussi di jaajëfal les responsables le coordonnateur départemental su ma ko cité Alioune Da Silva mel na ne cité na tous les responsables des treize de Goudomp pour le remarquable travail bu ñu def pour implanter Pastef à Goudomp ba fu mu toll nii tey di rendre le même hommage à tous les jeunes ak seen responsables aux femmes et ak seen responsables un hommage particulier à Chérif Ahmed Diko aussi pour taxawaayam donc di tamit rendre un hommage appuyé député Serif Ahmed Diko yaakaar naa ne yéen waa Goudomp yéen ñi ko yóbbu assemblée nationale rëccu leen ko ndax taxawaay bi war taxawaay bi war assemblée nationale taxawoo na ko kon continuer leen ko dooleel continuer dooleel responsable Goudomp yëpp pour Goudomp war a gën am taxawaay bi war ci biir Sénégal waaye nag koo wax jom wax fit wax taxawaayu góor taxawaayu jigéen ju fula nga war ko mën a nattee ci Olivier Boucal malgré oppression bi malgré brimade bi il est resté digne comme tous les Goudompois devant saalit mosul joytu ndax xalaat ne fi ñu ko yaree nii niñ ko yaree ak fit duñ ko yaree ak xam-xam duñ ko yaree taxawaay boobu rek la mënoon am face à l'épreuve de la prison kon loolu laa bëggoon xam leen seen doom muy ñi ma lim nii ak ñi ma limul te bu ma limee seen responsable mel ni lim naa ci ku taxawaay boobu am nañ ko ci yéen ma am nag benn nouvelle boo xamante ne les responsables eggee nañu mu ko muy la fédération départementale du PDS bu décidez cet après-midi de soutenir et de rallier la coalition Diomaye Président pour victoire du candidat au premier le 24 mars Profito lance un appel au PDS di que la voie de la rupture transformationnelle pour le Sénégal est balisée. que le 24 mars 2024, la coalition Diomaye Président triomphera et une ère nouvelle s'ouvrira pour le Sénégal. parti politique bu ñu nekk ak seen histoire ci Sénégal amuñu droit seetaan bañ jël le train de l'histoire lii responsable départementaux fédération PDS bu Goudomp def. dafa war a inspirer les responsables au niveau national et les responsables de tous les de toutes les fédérations départementales du PDS à travers le pays nañu jël leur courage à deux mains comme ni ko waa Goudomp defee suivre la marche de l'histoire parce que la coalition Diomaye Président avec tous les patriotes de ce pays-là va triompher et changer le visage de ce pays-là. am ngeen ne waa Goudomp am ngeen ci wàll. dès 18 heures dinañ gis mobilisation bu ëpp bi ngeen di fêter la victoire du candidat de la coalition de Bassirou Diomaye Faye de l'espoir de la bonne de la bonne gouvernance et des défis yi qui seront relevés dans ce pays maa leen di sant di leen gërëm bu baax a baax ci seen taxawaay asalaamaaleykum wa rahmatullah Koumbacké Goudomp ñu ngi leen di di leen ziare wax ji du gudd parce que ñun jàpp nañ ni mënoon nañu bañ a ñëw Goudomp sànq seeni kilifa dañ ma ne ñoom insisté wu ñu woon pour ñëw ñoom dañu bëggoon fi fi nga xam ne. peut-être ñu doole bëriwul fa noonu ñu privilégié foofu dem foofu mais mu ñu woon ñàkk a jaar fii parce que Goudomp dafa am lu mu représenté tey ci projet bi nga xam ne moom la ñu porté. man aw ma benn sikki sàkk ni dimanche prochain incha allah bii bu ñu paree compté bulletin yi. kii guddoom dinañ ci am quatre wala quatre-vingt-dix pour cent njëkk a ñëw yàlla def lañu ñu mënoon yëpp def nañ ko waaye gagné wuñu woon Goudomp ñu amoon ay nit yu am taxawaay bu rafet gu Goudomp ku mel ni Da Silva mi nga xam ne mooy coordonnateur bi ak ku mel ni ak ku mel ni Mohamed Diko nga xam ne bi ñuy nekk collège dañu yàlla boole ñu jàngandoo collège ba dem lycée. ñu continuer liggéey bi ñëw élection législative yàlla may ñu li ñu amoon fii déjà te ñoom ñu liggéey ko ci ay ati at mu am lu am solo lu ci yokku muy suñu frère suñu xarit suñu soppe monsieur Boucal Olivier Boucal def ko nag avec désintéressement ndax nekk loon ci liste yi du député waaye ñëw na jàpp ci liggéey bi ba loolu moo tax ñu gañe guddoom bi ba di ko muy nekk tey assemblée nationale. kon dañoo am lu am solo lu ñu am tey ak yéen mooy depuis juillet deux mille vingt deux yéen waa Goudomp da ngeen ñëw ba yokk ci ñi nga xam ne ñooy porter projet bi te gëm ni projet bi dafa war a jiite Sénégal moo tax ñun ñu am certitude que li ñu commencé 2022 est-ce que guddoon dina ñëw ba 2024 mu dellu gannaaw. adduna yëpp xam na sama diggante ak yéen ñëw naa fi élection législative du ma woon candidat ndax gars yi fexe woon nañu yàq yàq suñu liste nationale teewul ma jiite liste bi ñoo ñoo campagne fii ñu gagné mu ñëwaat élection présidentielle Sénégal yëpp yaakaaroon ni war naa mën a nekk candidat gagné élection bi waaye ñu def seeni i pexe gaw ma tax sax ni seen pexe la waaye yàlla moo tuddoon ni Ousmane Sonko du nekk candidat ñu nangu ko nag ñu nangu ko ak xol bu sedd guy parce que nous sommes des waaye nag teewul mënuma dem waaye andil naa leen Ousmane Sonko ndax Diomaye mooy Sonko Sonko mooy Diomaye daagu donc mu ngeen bëgg bëgg bëgg Sonko xam leen ni ku voteel Diomaye dafa mel ni joteel nga voteel nga Ousmane Sonko jaar yoon voteel Diomaye moo gën a nekk farata que voteel Ousmane Sonko bu doon candidat la kon li ñu woon la yeggali rek gagné commune baax na gagné département baax na waaye nag te réew mi moo gën est-ce que bëgg ngeen à partir de dimanche prochain réew mi incha allah kon dañoo bëgg dañoo ku fi jëlagul woon carte électeur na ko dem jëli que ku amul carte bokkoo ci xeex bi particulièrement les jeunes préfecture boo dem am na encore des cartes électeurs donc ku jëlagul woon carte am na ko dem jëli est-ce ngeen ma di ngeen yi muy benn ñaareel bi élection bi ni ngeen defoon ba ñu gagné ko defaat leen ko mooy voté leen waaye toog leen surveiller les bureaux de vote parce dañoo garaaw dootee rek candidat boor bëri nga xam ne dundam yëpp ci ndoxum la ko def kon il faut sécuriser le vote c'est important waa Goudomp ñun de liñ leen mën a promettre mooy bu ngeen defee di ngeen war a def wóolu ñu jox ñu réew mi bàyyi nañu suñu responsabilité di ngeen gis ñun li ñuy liggéey ci réew mi may daanele nag gannaaw lu ma sawoo bu may terminé waaw yéen a ngi ci gannaaw da ngeen di topp kon gannaaw bi ñu delluwaatee ma sawu suñu frère Bakar nga xam ne téye ko ay weer weer ci kaso bi ci caaxaan lu teg ma saw baax a baax a baax kay daane ne yéen waa Goudomp su ngeen fàttalikoo ay weer ci gannaaw dama annoncé à partir de Ziguinchor li damay def la caravane liberté bu domp laa njëkk a dugg ci dëkk boo xam ne ndax fii lañ ko jaare fii laa njëkk dugg waaye bu domp génn jour boobu laa xam ni je pars en libre et je vais libre yéen waa gub yéen ñëpp a génn gunge ma bi may dugg ci dëkk bi ba la sortie de la ville est-ce que demuñu en homme libre est-ce que dellu si wuñu en homme libre liberté boobu moo tax tey ñu mën a taxaw di waxtaan ak yéen kon ñu ngi leen di ci seen ay patriotes dëgg ngeen ay nit yu am conviction ngeen moo tax ngeen mën a toog ba deux deux heures du matin wala une matin di xaar suñu convoi bi ngeen may ma nag ma daaneel ci lancer un message. ma lancer un message ndax tey daa di annuler beaucoup d'étapes soo demoon tey Kolda heure bi mi ngi fees dell dell ak ay nit malheureusement mënuñoo dem Kolda dañuy obligé dellu fanaan Ziguinchor suba ñu teel a xëy daal dem Kolda continuer Tamba ak feneen ak feneen les messages waaw mais ngeen may mën a génn waa Goudiri message may lancé dama ko lancé Sénégal yëpp cinq jours de campagne moo de cinq cinq jours de campagne te ñun dañoo am retard parce que nit ñi def lañu campagne ay fani fan man ak le président Diomaye Faye ñu ñu téye woon ñoo def campagne kon ñeneen yi am nañu avance ñun cinq jours de campagne ñu war a def le centre du pays def le nord du pays wàccaat pour ñëw def meeting de clôture daanaka tey defaguñu 30 pour sant li ñu war a def moo tax li ñuy ñaan ñëpp mooy nañ ñu comprendre fu ñu dugg su dee 10 minutes dañ ko mën a def nañ ñu ko nangul fu ñu dugg tamit wala fu ñu mënul dem buñ ñu mere nañu xam ne ñun ay patriote lañu teewaayu Sonko ak teewaayu Diomaye wala ñu ñàkk teew du tax ñun li ñu war a def ci liggéey dinañ ko def kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant. leen wax victoire au premier tour victoire au premier tour victoire au premier tour le président Diomaye Faye dimanche prochain à sept heures ñu ànd gunge ko palais de la république récupérer li li nga xam ne mooy sañ-sañu sénégalais yi transformer pays ba nga xam ne guddoom dina changer moom parce que bi nga xam guddoom ba léegi benn guddoom bi laa gis dara changer yaa de sësën mi ngi ñëw.